mbaddajo bonno makky sall how are you mbadda mbaddon how are you mbaddon taaja bon taaja bon pol suñuy taaja bon dafay neexu lool sama nag bu jigéen kam am na doom doom bii am dafay nekk góor ku si ñëw si bis bi dangay naani meew dangay naani soow ba sa biir fees moo yaay bi yàlla nga laal kaaba ga